sëñ Maxtaar Ture fa jaar Maxtaar nga yori coor ko jëm Mbàkke Kajoor Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh Bamba Cheikh ko ca buur Cheikh Ibra Faal topp cay fexe Cheikh Bamba am na Cheikh Moustapha Cheikh Ibra Faal am na Cheikh Moustapha diggante mar wataay xaba ku yàgg war na may doxe Cheikh Bamba am na Sëriñ Saaliwu Cheikh Bamba am bi ca juunaay bambam bambi cuun bambi cuun Cheikh Bamba am noon Sëriñ Saalu Cheikh Ibra Faal am noon Sëriñ Saalu ku soppu Sëriñ Saal Mbàkke ku soppu Sëriñ Saal Mbàkke ku soppu Cheikh Saal Mbàkke awaay Baay Saal Mbàkke li mu defal Cheikh Béthio li mu defal Cheikh Béthio li mu defal li mu defal tey li mu defal tey li mu defal tey li mu defal naaru maam bambi caam xam na kuy borom jamono bambi caam naaru maam bambi caam xam na kuy borom jamono naaru maam bambi caam xam na kuy borom jamono naaru maam bambi caam xam na kuy borom jamono sax ma ci si gangan laaru mam bambi caam am na kuy borom jaana borom jamono borom jannatu bambi caam xam na kuy borom jamono bay sama ay da cuun xam na kuy borom jamono maam baam bi caam xam na kuy borom jamono ku màggal màgg Cheikh Bic Daaru Maam bi caam xam na kuy borom jamono kon Cheikh Papa Ndiaye Asilem xam na ma Cheikh bi ba mu koy woyal ca Asilem isin benn tëli ca Golfa booba xale yu bari judduwuñu mu bëgg ba lool daam fekk suñ Saliou su ñëw na waaw waaw ay waay yow day ah Diouf yow da neexal bis bi dama yen la way tey waaye dama ne naa taxaw rek bi ñu duggee si Fall nag lama lama police yi na na gaa góor gi mu dugg ma xam ne du asaar soxna suñu lay siyaare yàgg nañoo dégg si tur maa koy wax lu bari alsani ci guddi nag dama lay wax lu rëy asra ju guddi billaahi wallaahi taala am na lu ma dab ma bëgg a faatu ñaan gu ma sëñ Saaliw joxoon sama xel jar billaahi ma ca barkeloo dama la caawa ci ñetti yoon mel ne dara dal tuma kon dama noonu la faatu na ma mën a ngeen baal ma wax si sa waajur wu ku baax ku baax ku golo ku bëgg sëñ ku sëñ Saaliw dimbali dimbali ñëpp